Malick Diop maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay Ndeye Comba. Malick Diop nga nekk secretaire général bu mouvement dooleel transport euh, week-end bi nag organiser woon ngeen benn mouvement d'humeur benn marché boo xam ne euh, takku takkudeer yi dañoo daloon seen kaw lan moo xewoon exactement. waaw samedi bii ñu génn euh, fukki fan juróom-ñett euh, ci weeru mai bii ñu nekk dañu jëloon décision organiser benn marche motorisée fii ci VDN bi. mais à notre grande surprise vers vingt une heures si le commandant bu brigade bu Wakaam wooñu jox notification bi jóge ci préfet pour wane ni marche bi préfet daf ko interdire li tax mu interdire ko nag motif motif yu léger la parce que nee na marche boobu ñuy amal foofu dafa nar a causer embouteillage bu métti ci VDN bi te ñëpp xam nañu marche bu fekkee dañ ko encadrer avec des forces de défense mënul causer foofu boobu problème léegi nag ba mu joxee loolu ñun ñu avons pris acte daal ni nag nañu dajeeg suñuy membre fële sa esplanade Léopold Sédar Senghor pour bañ a créer benn embouteillage taxaw foofu def fa déclaration de presse ba ñu ñëwee foofu suñuy membre ñëw fekk ñu fa su nañu fa quatre véhicules de police d' intervention ñëw fekk commandant bi wàcc xamal nañu dañu jot ay ndigal si kaw que ni seen déclaration de presse bi mënu lañ ko amal fii rassemblement bi la ñuy bañ ñu nekk fa mu nar a jël problème ñu daal di kon nga accord kon nañu jóge foofu dem sa buntu seen TV bu ñu demee foofu woowaa seen fii ñu wàcc bu ko defee ñu def fa suñu déclaration bi ñu demee ànd ak suñu membre def daal si oto ñëw dajaloo foofu ba commencé def suñu déclaration si la ñu fa gendarmerie fekk daal ñuy gazé daal di arrêté si ñun lu tolloog ñeent fukki nit ak ñett parce que lañu neuf lañ jàpp la gendarmerie Wakaam jàpp douze la waa gendarmerie Fouare bi jàpp deux la waa gendarmerie Fouare bi jàpp ak seeni oto immobilisé ko ñoom ñëpp loolu nag ñu koy ñaawlu bu baax a baax a baax ndax ñun jàppoon nañ ni marche droit constitutionnel la boo koy teree dafa war a nekk lu exceptionnel mais motif parce que dafa am ay euh, embouteillage bu mu war a causé foofu loolu motif la bu légère bu fekkee encadré nañ ko dañ ko war a encadré warul mën a indi benn problème loolu nag ñi ngi koy ñaawlu bu baax a baax ndax bari na suñuy naatangoo yoo xam ne jàpp nañ leen ba fii may wax ni seeni oto ñu ngi leen immobilisé si biir euh, gendarmerie yi mm-hmm. biig si guddi rek ay une la waa gendarmerie Ouest Foire Doro bàyyi ñaar ñi nga xam ne ñu jàpp ne dañu continuer seeni oto loolu nag ñu ngi koy ñaawlu bu baax a baax a baax baax waaye nag loolu bu téye ñun loolu mënuñoo découragé ndax incha allah dañoo war a continuer xeex bi parce que li ñuy dund si jafe-jafe bu ñu taxawul taxawaay ba ñu war a am ay junniy junniy père de famille yoo xam ne ñu ngi si transport bi dañuy dem chômage te loolu ñun mënuñu ko nangu ndax état bi dafa ñëw di liggéey si nouvelle transport de masse jël lu mat junniy milliards investir ko terre jël lu mat juróom-ñaar téeméeri milliards investir ko si BRT renforcer parc Dakar Dem Dikk préparer lu mat juróom fukki milliards ak ñeent pour jënd ay bus yoo xam ne dañuy def interconnexion entre terre ak BRT. mais loolu yëpp lu baax la ñun dañ koy kàccu ak suñu ñaari loxo waaye nag dafa am lu fi xew muy application yi nga xam ni dañuy enrôler seen plateforme yi ay particuliers yoo xam ni amuñu licence amuñu assurance bu garantie client yi yëpp chauffeur yoo yor amuñu permis transport application yi ñëw jël suñuy loi ak suñu règlement réew sànni fële di permettre ñooñu ñuy def transport irrégulier ñu dugal leen ñu nekk ay junni junni nit ci plateforme yi di def transport bëgg a rey système transport de classe bi mu fi daj loolu moom dañ koy xeex te incha allahu rabbi mardi bii ñu jëgmal muy suba. Hmm. danañ continuer dugalaat suñu déclaration de masse pour continuer suñu xeex. pour loolu mën a jóge ci réew mi. Hmm. Euh, répression bi jóge ci nguuru Diomaye est-ce que amoo leen ci euh, déception ni ñu dalee seen kaw takku der yi euh, tere leen li ngeen bëggoon def. non déception bu rëy rëy rëy la ngeen am ndax ñun dañoo bokk si ñi nga xam ne ñoo ko teg Diomaye dañu former mouvement tuddee ko mouvement dooleel transport dem jàppale coalition Diomaye président deux mille vingt quatre si élection yi bi ñu koy jàppale nag dañu yaakaar ne bu ñu ñëwee dañuy def lu wuuteeg nguur gi fi nekkoon li fi def parce que ñoom rupture la ñu woote mais à notre grande surprise ñun ñooy les premiers ñi nga xam ne ñoom lañu def répression fu nguur Diomaye fay te laajuñu lu dul lu suñu ak ak suñuy yelleef mooy marche droit constitutionnel la demandé nañ ñu ko fere nañ ñu ko d'accord nañu mais taxaw si buntu benn presse di def déclaration de presse ñu ñëw di leen gazé ba jàpp si lu mat ñeent fukki nit ak ñett loolu lu ñuy ñaawlu la ndax nguuru Diomaye Faye ak euh, le premier ministre Ousmane Sonko defe naa ñoom xam nañ lan mooy répression gis nañ nguur gi fi jógee lim leen teg lépp ñu ñaawlu ko mais jàpp nañ ñoom bu ñu ñëwee. dañuy def lu wuuteeg li nguur gële daan def mais nii ñu commencé dañ koy ñaawlu parce que ñun ay acteurs de développement lañ ay liggéeykat lañu suñu secteur am lu ko menacé ñu ñëw taxaw di ko ñaxtu di ko déclarer pour adduna bi xam ko pour ñoom ñu dégg ko mën si indi ay saafara mais seul moyen bi ñu jël utiliser mooy jël force de défense yi jal ko suñu kaw ñu ñu tiré ay lu lacrymogène di jàpp suñuy membre di yóbbu si kaso bi loolu lu ñuy ñaawlu la Euh, kon tey ji aussi gis nañ ni euh, BRT bi exploitation bi tàmbali nañ ko euh, est-ce que dina am lu mu yàq si seen rendement si wàllum liggéey bi waaw wala déet. waaw BRT bi sûrement dina impacté bu baax a baax dina am lu bari lu muy yàq si système classique bi fi nekkoon muy système de transport classique bi fi nekkoon ndax BRT bi dañ ko defal voie réservée boo xam voie boppam boo xam ni mi ngi plus de cent vingt et un yoo xam da koy dawal. ba pare am yoonu boppam yoon yi nga xam nag moom lañ bàyyil yeneen mode de transport yi yoon yooyu dafa xat day créer embouteillage bu rëy rëy rëy léegi nag bu fekkee loolu jafe-jafe la nga defal kii ay bus si bees wutal ko voie yoo xam da nga ko réserver système classique bi fi nekkoon nekk si ay voie yoo xam ni dafa xat di créer embouteillage mais day naan client bi bu bëggee dem daan man kat du ma dugg si oto bii nga xam ni dafay tardé si embouteillage te kii am na yoonu boppam boo xam dafay dem trente minutes trente minutes wala quarante minutes mu àgg fa ma jëm man dama ko fi bàyyi dem jël bële loolu ñun xam nañ ni dana indi jafe-jafe bu rëy ci système classique bi nga xam ne moom la fi fekkoon looloo taxoon nag ñu demande nguur gi ni ko comme transport relais la dañu bëgg euh, aire de station euh, arrêt berte yi ñu def ay aire de stationnement yoo xam dañ ko réserver taxi yi bu ko defee ñu mën a assurer relais bi ku nekk mën si gis sa bopp waaye gis ay kii la yu ñu defoon yoo xam ne kenn respecté wu ko kenn jël ko en contre renouvellement du parti bi tamit day permettre citoyen sénégalais bi ñu war a jël berte mu am soit bu génnee gis taxe boo xam ne set na baax na rafet na mu ni naa ko jël pour plus de sécurité wala ma dem jëli BRT bi waaye nag liñ gis ñu koy doxalee mooy nguur gi tànk yi mu taxaw mooy dafa bëgg rey système de classique transport bi fi nekkoon pour moom jël transport bi téye ko ñu jàpp ne te demee noonu ndax ñun ay acteurs de développement lañ dañu investir nekk ay entrepreneur nekk ay transporteur investir système transport classique bi fi nekkoon doon liggéey avant BRT ñëw ak kon bu ñëwee daf ñu war a dooleel créer yeneen mode de transport baax na mais dafa war a dooleel système transport classique bi nga xam ne moom la fekkoon. Euh, tey ji aussi ñu gis leneen ci euh, circulation Dakar bi moom mooy euh, deux roues yi est-ce que deux roues yi am na lu ñu yàq ci seen liggéey waaw wala de parce que bari nañ fi trop nag. waaw Euh, problème sécurité publique lay causé ñun ça fait pratiquement cinq ans ñi ngi dénoncé ñi ngi def ay manifestation ñi ngi alerté pour nguur gi jël matuwaay yi mu war a jël ndax euh, dóor yi gis nañ ni agression yu bari dóor yi ñoo koy def tey taximaan yu bari tey ñi ngi leen di agressé ñu toj seen i parabrise te ñi koy def mooy dóor yi li si gën a garaaw nag mooy sous région bi ñu si bari dañuy jóge seen dëkk indaale ay moto yeneen réew indi ay moto néew di def transport de personne fii ci biir capitale bi te loolu ñëpp xam nañ ni transport dañ ko réserver pour ñi nga xam ne dañu am de nationalité sénégalaise mooy ay doomu réew mi ñoo war def transport public parce que loolu dafa bokk ci sécurité réew mi mais gis nañu euh, ñu ngi koy bàyyi mi ngi dem tey réew yi ñu wër yëpp seeni doom ñu ngi jóge ci yeneen réew ñu indi ay moto tey boo xoolee moto yi ñu ci ëpp dëkk duñu ay doomu réew mi ñëw fi def def transport te am du fay benn droit du ñu fay benn taxe ba pare dañuy indi problème de sécurité publique loolu tey nguur gi mu ngi toog di ko seetaan waaye fii ay at yu néew dinañ gis jafe-jafe yi nga xam ne moom la leen jur fii si réew mi dañu bëgg nguur gi ñu ngi leen di bu baax a baax deux roues yi war ñu def transport de personne dañu war a yem si affaire livraison mais bu ñu demee bu dugg transport de personne ak embouteillage yi li ñu demee ak ndakaaru ni mu demee day indi sa problème de sécurité routière day indi problème de sécurité publique tey bëgg nañ nguur gi jël matuwaay yi mu war a jël ngir système transport bi nekk Sénégal ñu organiser ko parce que dafa investir ay milliers de milliards ci transport de masse transport classique baa ngi fi ñëw dafa war am renouvellement kon waruñu permetre yeneen mode de transport yoo xam ni méngoowuñu ak loi ak règlement réew mi ñu ñëw di ko def te duñ ci am benn jafe-jafe. Hmm. loolu nguur gi kon daal waaw hmm. fan yii di ñëw fas yéene ngeen yëngu-yëngalaat wala da ngeen di bàyyi mu sedd. déedéet euh, fan yi di ñëw incha allah dès demain dinañ dugal beneen déclaration de marche te bu soobee yàlla ñu suñuy avocat ñi ngi def liggéey bu am solo si mooy application yooyu ñoom Yango ñoom Yassir It's ak ñu mel ni ñoom nga xam ni dañuy favoriser transport irrégulier ñu ngi leen yóbbu si yoon. avocat yi dinañ si communiquer. mooy ñu ngi def liggéey bu am solo si wàllu yoon pour yoon dogal xamal leen ni réew mi dafa am ay loi ak ay yoo xam ne moo ko encadré bu ko defee nag ñun dañ defar beneen déclaration de marche parce que faw nguur gi xam askanu Sénégal xam ñun suñuy jafe lan la bu ko defee nguur gi mën ko jël ay matuwaay ñaar rek mooy mën a nekk ñu li nga xam ne moom la ñuy sàkku ngir wane li nga xam ne mooy suñu jafe-jafe wala ñu jël ay matuwaay lii li xam ne mooy jafe-jafe transport ñu mën ko réglal ñu mën ko réglal ñaar yooyu lañuy ñuy saab hmm. kon il ñu jël ay matuwaay si jafe-jafe yi mën ko éliminer dindi système transport irrégulier bi ñu am si réew mi ñu dindi ko wala ilaa am na ay action yeneen yoo xam ne incha allah mën nañ fas yéene def ndax am nañ moyens yi am nañ nombre bi parce que transport ay junni junni doomu aadama lañ mën nañu xëy bloqué réew mi grande axe yëpp ñu ne mu xëy bloqué ko mais waraa ñu àgg foofu nag bëgg nañu nguur gi jël ay matuwaay ñu dajeek ñoom toog ak ñoom waxtaan ak ñoom wan leen jafe-jafe transport fu mu toll ñu mën see jël matuwaay yi nga xam ne moom lañ war a jël. kon Malick Diop euh, maa ngi lay remercier bu baax a baax. waaw ndey ko moom ñu ngi lay sant baax di la gërëm di sant seen auditeurs ak auditrices yëpp vraiment di rafetlu liggéey bu rafet bi nga xam ni moom la Rewmi TV ak Rewmi FM di def vraiment ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax. Hmm. Euh, may fàttali ni yow yaay secretaire général bu mouvement doole transport jërëjëf Malick Diop. jërëjëf